suul sa bàyyi morom mais man suul ma sama baay sama baay ba mu génnee àddina bàyyi ñes lañ oo mooy rakkam mm-hmm. mu ñëw moo jël ndox dayow sang ko defar ko jullee ko jébal ko boromam mm-hmm. loolu mooy suñu baax ñun mm-hmm. donc dama bëgg ñu dellu si ci ay format premièrement man maa ngi ñaan bépp dëkk boo xam ne dañoo bëgg Sidi Lamine bëgg mu am fa mbedd mu ñu ko tuddee te ba sàggat nañ def sitting parce que peuple bi bëgg nañu Sidi lamin te Sidi Lamine loolu jëriñu ko dara mais loolu ñu ko rendre hommage di ko ko fàttali ko pour won seeni doom bu ëllëgee mel leen ni Sidi Lamine. léegi euh, ni naa def laaj lu tax nga euh, tenir conférence de presse pour euh, wax loolu publiquement dama ne. lan nga fi ñu koy yóbbu dañ koy nëbb dañuy nëbb xuumtoo ne dañu koy yóbbu kaw la déedéet dama ne. Mhm. maanaam. xale bi ci boppam nee na ma son papa nee na ma lépp ci lim xam ne bi yaa ko jàngal man Sidi Lamine Bassine mi mara laa tàmbaleeg moom sëriñ bi. Mm-hmm. du ñu morom de du ñu ay seex. Mm-hmm. màggee naa ko cinq ans. Mm-hmm. te cinq ans yooyu feeñ na ci formation bi. jaaral fii bu jaar fi xam nga démb Youssou Ndour ñëw na toog. ma ne ko yaa ngi doon waxaale Sidi Lamine. pour mu jaay la Walfadjri pour mooy waroon nekk tey TFM. mais daf ma laaj ma dissuadé ko. 900 millions la ko jëkk a fay dem ba un milliard ñu ànd man ak moom ak suñu rakk bu jigéen bi Salma ñu nekk lii bi waxtaanee ko te nit ñi xamuñ ne ñu ñu ngi waxtaan mu mu mu suñu réeroo benn jamono. Mm. dañuy waxtaan mais d'accord nañu aussi ne ku nekk ligne ba nga bëgg na nga ca dem. man j'ai une ligne boo xam ne dafa correspondre ak benn tempérament moom am na ligne bu correspondre ak benn tempérament même seex ñaari seex sax maa ngi ñaari seex yi maa leen jur mais bokkuñu léegi euh, ni naa dafa sànq yaa ngi ko doon aatu bi mu koy wax hmm. ne dafa am ñoo xam ne dañu mer si yow taxawaay bi nga am nga ni dafay waxul dëgg ah.

ndax amul benn force de l'ordre bu mënoo téye nit ñi dañoo gas bàmmeel bi ñu suul ko boobu newuma fii ñu suul ko nit ñu ñoo taxaw ne du dem ba mujj gi ñuy indi armée pour ñu ñu garder corps bi ok nit ñi nangu suñoo nangu loolu bu ñu ko nangu loolu kon fekk naa ñu suul ko bu yàgg hmm. waaw mais yow yaa joxe ndigal ne nañu xaar dama ne bien sûr man maa ne ajjuma ca bañ ma ko waxee ca avion ba avion bi awul ma ne ajjuma bu ñu jullee jumaa ah, loolu da nga waaw pour que ma bàyyi laisser le temps au temps mm-hmm. mm. léegi nag li nga xam ne moo am importance mooy Sidi Lamine ñetti yëf la am ndonoom ay donoom ñoo ko moom ay jabaram ak i doomam mm. tey jii am na ay doomam yu ne këram am na ay doomam yu nekkul këram mais ñom ñëpp ay doom la ñëpp carte d'identité lañ yore extrait de naissance seen yaay am xawmo ay amul ben jihi jaaxa bo xam amna am après enterrement bi parce que. ont non non non au contraire tout s'est bien passé. c'est même très très bien passé. te ñëw ko laajoon leew nañ seen ñëpp ñëw nañ jaale si ñu ñun ñëpp ñëw nañ jaale kii si lami ñëw nañ sama kër kon amul ay problème réunification parce que non non non mooy xale yi xale yi mhm. xale yi yi nga xam ne minunte wuñ mhm. mais ñu ñuy adam kooku sama mission la man mhm. pour ma dajale leen euh, kii leen mu bañ a am ay ay xëccoo léegi kii dafa laaj euh, Khadija nee na léegi Walf euh, këru liggéeykaay bi nga xam ne si Lamine moom moo ko sàncoon te mu fes si àdduna bi yëpp

kon man gérer ay entreprise wàcc na ma ndax mënoo liggéey entreprise sax retraité naa bu yàgg ba dem mhm. man côté boobu du li ma intéressé mhm, xam naa daal société bi mhm. actionnaire unique la dafay tombe dans le capital décès kooku affaire ñooy doon la ñooy doon nag dañuy yëkkateem dañuy daaneem dañuy jaay dañuy reprendre loolu ñoom rek rek rek la concerne ah? waaw lu ma ci man lu ma ci mën ci ndimbal ndimbal laay mën a def mm.

su fekkee woon na ma bëgg diriger ay entreprise de presse mën naa def OPA ci TFM Sen TV ak yéen ñi hmm. même bu doon 10 milliards te leen ko ma fay cash bu ma intéressé woon hmm. mais ça ne m'intéresse pas loolu laa wax. mais xam nga tey ñu bëri euh, mun nañ calme tuuti euh, léegi euh, am nañ Khalifa xam nga modèle Walf hmm. ñun ñëpp gis nañ ne que dafa am jafe-jafe si. télé la boo xam ne par exemple publicité amu si. te loolu nekk moteur boo xam ni dafay dawal euh, télé tey modèle boobu nga xam ni Sid lamin moom moo ko téye woon ak euh, loxoom sans ay publicité ak yooyu euh, modèle boobu suñu bàyyee noonu fa kër gi dafay tëj yow mi nag nga xam ne yow yaay magam te mën nga si bay waar laaj bi mooy est-ce que fa façon yéene yow taxaw xar sa tànk tubéy ne kër gi du tëj. xam nga. boo demee ul fajiri tey ñi nga xam ne ne ñoo ñoo ko ŋànk ku toll fii xam ne am na anomalie parce que naka la ñu ne ñoom ils sont fidèles à Sidi Lamine son seul frère bu mbokk bokk ak baay kenn ci ñoom jógee lu fa ñu ne sigil ndigaale mel ni Sidi Sidi Lamine amul mbokk te TFM def ko collectivement am na foofa des têtes fêlées absolument c'est le moyen qu'on puisse dire c'est le moyen qu'on puisse na ñëw jaale la ah, ah. kon loolu est-ce que du bu ñu nit kon ña nekk nekk fa waruñ faa ne. kon waruñ faa ne. a ñoom dañ jàpp ne yaa leen war a dem jaale ji. Ah, man dox dama leen di jaale ji yéen yéen maa yéen leen di jaale. danaa hmm. dem Touba jaale danaa dem Tivaouane jaale ndax man jàpp ma ne ëppale naa kenn si di la. Hmm. waaye nag wax dëgg yàlla. waaw ah, mais yow dañ la war jaale. waaw kay ah, très bien loolu laa wax dama ne ñoom. ñi ngi ñoom ñi ngi euh, cultivé loo xam ne. Hmm. kenn xamul fu ñu ko jëlee. bëgg a ñëw ci diggante njuru sama yaay ñaari doom yi ñu bëgg ne ñoom kii lañu àndal mais kale xamuñ ko yëguñ ko duñ ko faale duñ duñ duñ ko ne sax sigil ndigaale ak li mu yombe mm-hmm. je crois que loolu itam nit ñi mënuñ cee ànd mm-hmm. kuy defee noonu waruñ laa dénk xam naa dañuy dañuy waajal ñoom dañuy waajal pour ñu jàll si la ba tey ñu rafetal quoi concédons la est-ce que ñoom aussi tamit jàpp ñu ñi nga xamante ne moom nga doon dundee ak Sidy Lamine ñoom loolu la ñu jàpp loolu ñoom seen néew ci ñoom du ñëw naa toog ak diwum Sidi Lamine ak jawaram lu dëgg xanaa ñoom mënuñoo gën a ñu gën a jege ñooñu Sidi Lamine wala ñu gën maa jege man xanaa xamule même ñu mujjur sax maa leen ko gën a jege man rek maa mu bokk ak moom benn biir ah lu wér bu naawee nga naaw aywa euh, bu naa loolu loolu ci tubaab ça s'appelle de la fumisterie <laughs> jàll leen lii aywa euh, waxoon naa itam ne sama xel dalul ci Sidi Lamine ni mu fi jóge mm-hmm. ndax koo xam ne pendant fanweeri at yaa ngi ñëw di gaaree sa oto fi nga ko daan gaaree di di xëcc frein à main bi. kuy wàcc wàcc kuy wàcc kuy yéeg yéeg. ba benn bés nga xëy frein à xëcc. oto bi dem say doom yu ndaw nekk ci moo mbëkki benn miir ñu dee nga dem dékku oto bi lu tax oto bi frein à bi doxul y a-t-il eu sabotage y a-t-il euh, na nekk défaillance technique. da mën na ne d'accord xam nga Lamine Gueye nee na xel bala moo rafet bala moo noo rafet ñaaw. Mm-hmm, y a un doute. pourquoi oto bi bësu koo def ba bés boobu xale yi ne ci bu ci xale yu nekkuloon on n'a pas de problème. Mm-hmm. moom nag mu paniqué ndeysaan jël jël jëmmam bu a dégg ko oto boo xam ne dafay wàcc dafay wàcc mbartal. dal ci kaw miir bi genn wàllu mur bi dal ci ci kaw loolu mu nekk ko li ma wax ne am na négligence ba loolu amee ba ma fi nekkoon danaa ci taxaw danaa ci taxaw ba mu ba mu wér bañ faj ko yóbbu ko fu ñu war a yooyu faj ko dañ ko négligé bàyyi ko muy demaale loxo bu dam tànk bu kii yu kenn xam yoo xam ne dafa kan ne xam nga nit ko ne xam nga Sidi son fils il est médecin. bi fille, ah, sa fille sa fille nga est la la non, non, non, non, mhm. escalier non, non, rek non, non, ba ba non, ci a personne. autour non non non non sécurité 68 ans. di war na jóg di xool cee cartable cee dara jéem a kii ban ma ñëwee sama kër naa ñu taxaw def nangam mais on dañ ko bàyyi tout seul tout seul. avec son man ay négligence laa wax. ay hmm. négligence. somme de négligence. parce que dafa am ñoo xam ne dañ doon gagner seen vie pour isoler ko pour mën koo jekku oh pour yàq ligne éditoriale am bu baax ba nga xam ne moo tax mu nekk numéro un. Hmm. moo tax loolu moo dakkaloo publicité bi nag. parce que publicité bi kenn koy joxe. wala ku ku ko joxe moo la tax la moo la jox la tax nga joxe ko soxla ma leen di wax kan la. Mm-hmm.